tey nag euh, dañu bëggoon à l'occasion wax ci li nga xamante ne ni moom mooy gàmmu maanaam lan mooy gàmmu fan la jóge cosaan bi brièvement ak également lan mooy euh, la mawlidu nabi lu tax ñuy def gàmmu euh, lu tax ñuy def gàmmu ak kan mooy yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëw fii ci àdduna bi fii ci moom yi mu nekkoon ak euh, fii mu nekk fii tey ci àdduna yan maraaxil ay étape la aw ba ñëw ak si fii ak lim ñu indil message bu mu ñu indil lan la message boobu nga xamante ne ni moom mooy euh, message bu alquran lan la naka lañ ko war a mën a jàppee ba mën a nekk li nga xamante moom lañu ñu war a nekk suñu rôle de leader ñu mën ko dox fii ci àdduna bi ñi nga xam ne noonu la waree en tant musulman di dongo rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen ne li jiitu mooy gàmmu gàmmu gàmmu mi jóge ci eh, benn xew-xew boo xam ne ci seizième siècle la amoon ñu ngi naan précisément à mille quatre cent quatre-vingt-treize eh, ci fi mu kawoon kawoon mu nekk nag à cinq kilomètres de Kaolack foofu moo nekkoon diwaanu Buur Saalum Buur Saalum boobu xam nga Mbéga Ndour moo rayoon eh, ku ñu naan Yelli Banna Sall donc euh, foofu ci kawoon donc euh, ka gàmmu nag moomaa yooyu ci seizième siècle bi ñu koy def fii dafa nekkoon loo xam ne ay euh, fecc la woon dañ ko doon organiser pour ci ay fecc def ay danse traditionnelle rituelle yoo xamante ne Euh, da ngay fecc di def comme euh, comme li ñuy def xoy takk ay masque muy dem am ay séance séance divinatoire euh, maanaam di def ay xoy di di di di di pour di wax ci li nga xam ne naka la kii bi nar a amee lii nga xamante ne ni moom mooy hivernage muy nawet gi naka lay sottee donc bu moment boobu nag da doon nekk moment yu xaw a doy diggante góor ak jigéen ñëpp dañuy jaxasoo euh, sàngara sa di wal lépp loo xam ne dañu ko tere mu nekk loo xam ne lu ñu daganal mu nekkoon loo xam ne mbiru cedd dëgg la boo xam ne euh, valeur islamique yi wala morale et religieuse daf koy retrouver mu nekk nag euh, loo xam ne lu doy waar depuis ci mille quatre cent quatre-vingt-treize foofu ci kawoon donc loolu moo indi ñun ñëpp xam nañ ko cérémonie divinatoire yi nu muy demee ay xoy la di prédire naan euh, nawet bi dina baax dina am kilifa bu faatu euh, dina am ay accident dina am ay ngelaw dina am mën am cataclysme ay inondation ak yooyu yëpp comme forme euh, comme niñ ko xame tey nga xam ne saa yu jotee rek da ngay gis nit ñi ci seen jëmu bopp Euh, dañuy ci bàyyi xel surtout ñi nga xam ne ay ceddo lañu euh, ba tey bàyyeeguñu dañuy bàyyi xel ci ñooñu li nga xamante ne ni moom lañuy wax donc loolu nag li nga xamante ne am na ba 1902 ci la ku ñu tuddee fii ci Sénégal euh, Sidi Hadj Malick si radiallahu taala anhu la ko indi instauré ko moom ak mbokkam ñu tuddee maam Rawaan Ngom bu Paal donc mu nekk loo xamante ne lu am solo def ko foofu ci ci ci ci Tiwaawan mu nekk loo xam ne pour lan pour révolutionner maanaam li nga xamante ne ni moom mooy entendement bi ñu amoon bi nit ñi am ci gàmmu nga xam ne ay fecc la woon ak woy ak i tàccu di sol ay masque yoo xamante ne ni góor ñi sol comme ni jigéen jigéen ñi sol comme ni góor nga xam ne du ñu xàmmante sàngara si di di daw lépp du daw mu nekk loo xamante ne ni lu kéemaane la loolu mu bañ ko mu ne donc naka la ñuy def donc à partir de notre histoire dañuy revisiter maanaam suñu propre histoire nos valeurs socioculturelles pour que ñu mën a fexe ba nga xam ne nit ñi dinañ comprendre li ñu mën a wax même maniement yi jël pour expliquer lii nga xamante ne ni mooy liñ fa doon def ci lu bon dañ koy renverser di fa def loo xam ne lu baax di fa tudd yonent bi sallallahu alayhi di ko fa kañ euh, euh, euh, di di di di di ko fa yëkkati mu nekk loo xamante ne ni lu ama ama ama ama ama am solo moo tax am na solo trop que ñu xam ne lu ama am solo la initiative boobu nga xam ne moom la maam Sidi Hadji Malick jël ak ay mbokkam parce que nit ki mënoo changer une société nit ki d'abord muy la personne l'individu mais également la société la collectivité kenn mu leen changer lu dul ci li nga xam ne à partir de leur valeur endogène maanaam suñu juddoo liñ leen yare seen aada ak seen cosaan ci ngay xool naka la ñu mel bu ko defee nga aw foofu pour nga mën leen changer parce que toujours loolu la boo bëggee changement boo xamante ne ni bu am solo bu profond boo xam ne moom ngay def ci ñoom donc loolu nga xam ne moo doon comme li ñu tuddee gàmmu kawoon da doon gis yeneen xew-xew yoo xam ne nga xam ne Saalum la amoon kawoon mais aussi da doon gis yoo xam ne dafa doon am siin ci xoy yi dafa doon am bawol euh, am am am am kajoor yu yëpp bundu am usuy am ci fuladu ñuy wax kenn ku ci nekk lii dina am lii dina am à partir de des savoirs euh, du terroir euh, endogène yi nga xamante ne ni moom la sénégalais yi xam donc mu nekk loo xam ne beneen innovation maanaam prouesse boo xam ne euh, Sidi Hadji Malick def na ko mu nekk loo xamante ne lu am solo ci lii nga xam ne moom mooy fexe ba nga xam ne maanaam lii dafa bokkoon seen suñu mémoire collective sénégalais suñu histoire bu nekk loo xam ne dafa waroog religion euh, euh, monothéiste yi surtout particulièrement l'islam ci biir jeuneem moom si Hadji Malick mu jël ko mu changé li nga xam ne mooy la cour euh, de l'histoire euh, wala le cours de l'histoire changé ko fexe ba nga xamante ne ni euh, jullit bi léegi nga xamante ne dugg na tuub na dina ci gisaat boppam donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama ama am solo parce que foofu la jóge baatu gàmm ñu jël ko islamiser ko ci mbiru cedd la woon mais maam Sidi Hadji bi mu ñëwee mu mu mu islamisé ko fexe ba nga xam ne ñi doon ceddo di def lu mel noonu léegi dañu koy changé ci ci ci ci jàng alquran tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eh, di ko kañ eh, jox ko place bi nga xamante ne ni gëdd gi nga xam ne moom la ko alquran jox moo tax eh, ci maanaam gàmmu itifaal mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk mbir moo xamante ne bu am solo boo xam ne ñi koy def jubluwuñ ci dara lu dul bëgg alquran bëgg lislaam bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla mi ngi koy wax falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nuura alladi unzila maahu ulaika humul muflixuun ci suuratul Araaf mu ne ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy yi gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak moom ba pare maanaam di ko kañ yëkkati ko honoré ko wana saruhu te di ko dimbali fu mu ne kaay leen dem rek ñu fekk si ko ànd ak moom wattaba'u nuura allazi eh, eh, eh, unzila ma'ahu ñu ànd ak leer gi nga xam ne moom la ñu wàccee ànd ak moom muy alquranul karim mu ne ulaayika humul muflixuun mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñi mucc mu ne euh, euh, euh, ceux qui suivent l'envoyé de Dieu Muhammad le alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam illettré parfaitement par le Seigneur des mondes mentionné par eux par Moïse et Jésus c'est-à-dire respectivement dans la Torah et l'évangile euh, originaux qui ordonne aux hommes ce qui est convenable conforme à la volonté divine, interdit ce qui est répréhensible, déclare licite pour eux ce qui est pur et salutaire, et déclare illicite ce qui est impur et pernicieux, les soulage de leur fardeau, obligation difficile qu'ils étaient tenus à respecter, et des carcans qui, en raison de leur action, pesaient sur eux tout ce qui sincèrement croient en lui, l'honorent, l'aident et suivent la lumière descendue avec lui, le Coran, seront les bienheureux. donc kooku mu ngi nekk ci verset 157 ci suratul araf araf moom mooy verset araf euh, ci euh, suratul araf gis nga mooy ñan lii rek déjà dafay wane ne war nañoo gàmm ay bi lu mu bëgg wax mooy lan mooy yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yi ñeent yi lañu laaj ci moom mooy al imaanu bihi gëm ko waaw yonent bi dañ ko war a gëm boo ko gëmul mënoo ko defal dara loo gëmul mënoo ci def dara doo ko def sincèrement donc du taxaw ñaareel bi mooy taazizuhu mooy mooy maanaam fexe nga nga jox ko gëddam waaw nga yëkkati ko waaw nga yëkkati ko honoré ko ñetteel bi mooy nusratuhu dimbali ko ci kuusam ci sa alal ci sa doole ci sa waxtu ci sa lépp ñeenteel bi itbaau kitaabillah euh, euh, aw kitaabullah mooy maanaam topp alquranul karim muy huwa nuuru lladi unzila maahu muy leer gi nga xamante ne ni moom la ñu wàccee ak yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam beneen bi mu ñëwaat encore ci beneen euh, li nga xamante ne nii wane ne donc yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a yëkkati mu ne laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi man euh, euh, min wuldihi aw min waladihi wannaasu ajmain aw wannaasi ajmain laa laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa naasi ajmain man yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ki du gëm mukk mukk mukk mukk mukk yàlla lu dul dama ko gënal boppam gënal ko doomam gëmal ko gëm gënal ko nit ñëpp donc mu nekk loo xamante ne lu am solo la donc bu fekkente ne ni l'islam ci jëmu boppam dafa dafa dafa digal nit ñi mu ne sunna la bu nit ki amee doom doomam ci jëmu boppam mu mu jóg euh, euh, euh, defal ko battem muy ngénte ci juróom-ñetteelu fan bi ñii ci juróom-ñaareelu fan bi mu defal ko li nga xam ne moom mooy ngénte mu reyal ko ci juróom-ñaareel bi comme ni ma ko waxee wala juróom-ñetteel bi di sant borom bi ci loolu ndax cofeel gu mu am ci doom bu bees bi ko yàlla may waxantuma laak nag ku mel ni yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga ci biir loolu fonk bi mu fonk loolu parce que yooyu yëpp ay acte de de de de de de de respect la de déférence euh, jëme ci de considération jëme ci ki nga xamante ne ni mooy doom bu judd ba moom sax yéen si yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne bisu euh, euh, altine mu ne zaaka yawmun wulidtu fiihi wa fiihi unzila al euh, waxyi alayya waaw aw kama qaala fi riwayatin ma mu ne bis boobu muy bisu altine ci lañ ma ci laa juddu ci laa gane si adama wa àdduna waaye aussi ci lañ wàcce ci man alquran donc moo tax mu doon woor bis boobu donc loolu lan la tatajaddadu niamullahu niamullahi fiha ala ibadihi loolu lan la mooy wone maanaam altine nga di ko woor dafay reconnaissance la euh, rendre grâce la ci li nga xam ne mooy xéewal bi yàlla def ci bis boobu ba mu wàcce ci yow yonent boo xam ne moo la xamloo sa yàlla yow pour nga xam naka ngay toppee borom bi subhanahu wa taala moo tax ci benn aaye ci suuratul Euh, ci suuratu Ali Imran ci verset cent soixante-quatre yàlla mi ngi wax euh, laqad manna allah laqad manna allahu ala almuminina iz baasa fihim rasulan min anfusihim euh, yàlla dafa jox maanaam cadeau bu mag a mag a mag a mag a mag bi mu wàccee ci ñoom yonent boo xamante ne nii Eh, eh, eh, dafa ci dafa bokk ci dafa bokk ci ñoom donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama ama am solo donc en vérité Dieu a fait un don gracieux aux croyants quand il leur a envoyé un prophète choisi parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent antérieurement dans un égarement flagrant donc gis nga mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo pour que ñu bàyyi ci xel mooy ne ku toll noonu nga xam ne yàlla dafa yónni ci yow mu bokk ci yow pour mu jubal la mu awoon la foo xam ne xamoo ko woon te lépp muy mbaax mu yonent bi noppeem tekkaayam yëngatoom waxam tëddam nelawam léppam jàngale la yërmande la xéewal la ci ñi nga xamante ne ni ñooy waxuma rek jullit waaye mooy nit ñi loolu nag moo tax di di di lan la ñuy def ci ci ci ci ci gàmmu googu bi nga xam ne tey ci Sénégal ñëpp xam nañ ko partout dans le monde fooy suivre rek de part le monde di nga gis euh, euh, euh, loolu dañ koy bàyyi xel waaw dañ ciy bàyyi xel pas plus tard que ce matin rek am naa fu ma jàll ci télévision Almanar Euh, ci def benn waxtaan boo xam ne defoon naa ko ci Sénégal ak ci gàmmu ak yooyu même France 2 ci samedi bi euh, dimanche bi rek def nañ ci émission ba joxee exemple Sénégal ni ñuy jëlee gàmmu ci ci ci ci fii ci Sénégal ak importance bi nga xamante ne moo ko jox loolu nag mu nekk loo xam ne lu rëy la donc moo tax euh, lii mu nekk lu ñu war a taxawal di ko war a dundal di ci taxaw def ci lépp loo man parce que gàmm gi nga xam ne moom lañ sunu mag ñi indi tey taxawal ko tey mu depuis 1902 nga mu taxaw ci maam Sidi Hadji Malick taxaw ci ak yi nga xam ne ñoom la ci àndal moom mooy bi ci jiitu mooy zikru durus waaw wala wala qiraatul quran jàng al quran ba pare jàng ci di ci jàngale jàngale ci li yonent bi wax li yonent bi def parce que dëpp képp koo xam ne yaa ngi seede di xool di nga xool depuis le premier la première nuit muy ci Tiwaawoon muy ci yeneen foyer religieux yi kenn ku ci nekk surtout lépp ngay wax ci maanaam ci yonent bi dund yonent bi euh, maanaam plusieurs facettes yi nga xam ne moom la ñu xam ci yonent bi lan la ñuy jàng ci yonent yi ci li nga ci yonent bi ci ay valeur ci yoo xamante ne joxe na ko ak li nga xam ne moom lañ ci war a tiire conclusion pour man koo jëfe mu nekk loo xam ne lu am solo parce que loolu dafay ko am conformité ak aaya alquran bi nga xam ne moo nekk ci suratul Hud ci eh, eh, eh, suratul Hud mu nekk aaya boo xamante ne ni bu ama am solo boo xam ne daf ñuy wax rek li nga xam ne moom mooy ba tey mooy gàmmu lu ñu war a def la maanaam farata la farata la parce que dañu ne wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli maa nusabbitu bihi fuaadaka wa huwa qul haadihi huwa alxaq wa mawizatan wa zikra lil muminin mu ne yow yonent yàlla Muhammad mi ngi nekk ci suratul Hud verset cent mën ngeen ko gëstu xool mu ne ko euh, euh, euh, yow yonent bi li ñu lay nettali ci ay histoire min anba'i rusuli li nga xam ne dafa jóge ci ay xabaar yu jóge ci ay yonent yoo xam ne yu la jiitu loon la nekkul lu dul maanu sabbitu bi fu aadaka nekkul lu dul pour dalal sa xel nga am une ci li ngay def wa jaaka fi haadihi fi li ñu lay wax ni muy ay anba dañ la koy defal pour mu nekk nag dëgg li ñu lay wax nii dëgg la wa mawizatan te dafay nekk waaraate la waaraate la wa zikra lil muminin te day fàttali jullit ñi ñi gëm donc gis nga ko aaya bi dafa résumé gàmmu te képp koo xam ne day rejeté gàmmu rek yaa ngi dégg na ngeen ko jël rek ngeen indil ko aaya bi muy verset cent vingt ci suuratul Huud yàlla ne ko yow dañ la ko yónnee di la di la di yow dañu lay nare di la nettali ay xew-xew yi nga xam ne ay yonent yu la jiitu woon la pour dalal sa xel yow yonent yàlla Muhammad waaye loolu ñooy wax ci ñoom pour pour pour pour pour amul dara lu ci nekk lu dul dëgg wa mawizatun mu nekk loo xam ne nag waaraate la wa zikra nekk loo xam ne luy fàttali la euh, euh, lil muminina ñeer ñi nga xam ne dañoo gëm ñu ñëw mu ne nous avons narré pour toi de chacun de de récits des prophètes afin que nous affermissions ton cœur par ces récits Voilà la vérité qui t'est parvenue en cela. C'est une exhortation et un, rappel aux croyants. benn ma ñu faj aay xam ngeen histoire bu ñu ne narré rek mooy histoire les récits narratifs la narration waaw euh, donc nga xool euh, léeg-léeg histoire dafa am histoire analytique histoire événementielle histoire euh, événementielle mu ñëw yooyu yu koy indi ci oralité la jóge bu ñu ne oralité ci mythologie ci ci ci légende ci ay conte ci ay ay ay ay ay ay euh, euh, épopée euh, sardiate ba ci ci ay récit narratif loolu mooy histoire mais bi ciy dëgg mooy bi nga xamante ne ni mooy histoire savante nga xam ne am na lu leer ay date am na ñu ko fekke ñooñu def ay témoignages loolu moom mooy histoire moo tax yàlla toujours muy wax ne liñ lay nettali mooy mooy dëgg xisasul xaq comme ni mu ko waxee woon ci bi muy nettali problème mu yonent yàlla yuusuf mais gis nga ba tey mu fu mu ci kare mu ne ko gis nga li may wax ni dëgg la donc c'est vérifié c'est une histoire savante mais wa mawizatun lan la dafa nekk rappel waaw gàmm lan la lu dul rappel li li yàlla bëgg li yonent bi bëgg loolu mooy rappel loolu tax a jóg alquran mooy zikra zikr la donc bu ñu ne mawiza muy prêche muy loo xamante ne ni exhortation la dañ leen di woote mais loolu moo nekk ci gàmm loolu la alquran indi muy aaya bi muy 120 ci suratul Hud ba pare mu ne exhortation la day xëcc nit ñi di leen yóbbu di leen waar waaye wa zikra day nekk rappel commémoration day nekk célébration muy fàttaliku waaw lil mu'minin ñeel jullit ñi donc jullit ñi buñ defee lii loolu moom mooy tuyaaba sax ñàkk def lii moom mooy jaaxal nit ñi moo tax ñi nga xam ne defuñu ko bu ngeen leen xoolee ñi nga xamante ne defuñu ko mooy les salafistes wahhabites xool leen ñan lañu àndal noonu l'islam yi la ñu àndal heureusement que sax seen buur bi léegi moom ci jëmu boppam moo leen jëkk a contre dafa ànd ak suufiyanke yi contre mbooleem loo xamante ne ni mbiru wahhabiya la donc mu nekk loo xamante ne lu am solo pour que ñu bàyyi ci xel moo tax yonent boobu dafa war ñuy bàyyi xel ci moom di di ko yëkkati di di def ay gàmm parce que gàmm yi euh, euh, dafa am loo xam ne dafa am solo parce que boo xoolee ci wàllu euh, yonent yàlla isa alayhi salaam yàlla daf ko defal gàmm dafa daf ko defal gàmm juddoom ak deewam juddoom mu mu mu gàmmul ko ak deewam mu gàmmul ko ci ban aaye mu ne wa salaamun alayya yawma wulittu yow ma wa yawma amuutu wa yawma ub'asu yan ci Isa ibnu Maryam mu ne yàlla jàmm yàlla na nekk ci man bis bi ma juddoo est-ce que gàmm du loolu la ñuy def ah di kañ yonent bi ci bis bi mu juddoo wa ma amuutu bu deewee aussi ñu war ko mën a def wa yawma ub'asu bis bi nga xamante ne nag ci lay dekki mu mu dekki nekk euh, dund tu donc gis nga mu nekk aaye yu leer nañ donc def sa anniversaire xaraamul gis nga ci ay alquran bi kon Isa du def anniversaire u boppam tu avant muy gaañu di wax ñeneen ñi defal leen ma defal na ko boppam moo tax mémoire collective dañu koy sàmm parce que mooy histoire bu loolu amul rek capacité mémorielle yi ñuy am pour man di fàttaliku dootuñu ko amati te suñu histoire dafay réer moo tax dafa doy waar ci beneen bi beneen aaya ñëw ci surat ci ci Yaxya ibnu Zakaria muy Jean Baptiste fils de Zachari lan la wax salaamun alayhi yawma wulida wa yow yawma yamuutu wa yawma yubasu xayyan mu ne moom Zakaria doomu doomu euh, Jean Baptiste doomu Zakaria yal na jàmm nekk ci moom bis bi nga xam ne ci la si àdduna waaw bisu àdduna ñu ñu naan jàmm nekk ci moom moom la duñ la soye kii euh, souhaité joyeux anniversaire santé moo ciy jiitu ah euh, prospérité ah, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi ciy topp c'est corollaire donc gis nga loolu la ko yàlla ñaanal bis bu mu juddoo comme ni ma ko ñaanale jésus yaa ngi dégg mu ne aussi ak bis bi muy gaañu parce que jëf na jëf yu baax yoo xam ne kenn waratu ko fàtte ak yow ma yubaasu hayyan bis bi nga xam ne nag ci lañ koy dekkil yàlla fay ko li nga xamante ne ni moom la ko yónnee woon moo tax moo tax euh, euh, euh, di di di gàmmu yonent bi sunu imaam yi awliyaa ullaahil kummal yi comme fii ci ci senegal euh, maam Sidi Hadj Malick Sy euh, maam Borom Touba euh, maam El Hadj Ibrahima Niass wala Abdoulaye Niass ak ñooñu ñëpp nga xamante ne ni dañ leen xàmme ci gàmm ak yeneen kër yi ci ba ak ci Medina Gunaas ak fépp ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk seen seen jóg di ko def wonewul lu dul cofeel bi ñu am ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi te yàlla tënku ko ci aaya bi fa alladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nuur alladi unzila maahu ulaika humul muflihun ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati ko jox ko teddange respecté ko jàppale ko ci daawaam topp alquran leer bi nga xam ne moo and ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na ñoo ñoo ñu mucc donc ku ko deful lii safaan wi yow kay yaa war a xool sa bopp fan nga jëm ëllëg donc dafa nekk loo xamante ne ni lu ama am solo pour ñu ci bàyyi xel moo tax euh, màggal yonent bi comme na ko waxee imaam yi awliya yi ñi nga xam ne sax dañoo dee ci lislaam dafa nekk mbir mu lëy rëy ndaxte nit ñi jullit ñi waxuñu ne yonent bi mooy yàlla comme ñeneen ñi niñ koy waxee wala dafa niroog yàlla waaye dañoo wax ne yonent bi moom moom jaamu yàlla la te te yonentam la ndawam la yaa ngi dégg yaani lam yaqul il muslim inna muhammadan ibnullahi suuf al iyaazu billah aw mislullah aw bal inna muhammadan abduhu wa rasuluhu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la te ndawam la moo tax yaa ayyuha alladina amanu uzkurullaha zikran kasiran gis nga dee leen maanaam yéen ñi gëm di fàttaliku yàlla fàttaliku yu bëri wa sabbihuhu dee leen ko sabbaal bukratan suba wa asilan ak ngoon ci suratul ahzab verset 42 loolu lu muy wone mooy ne ndekete daje bi ñuy daje muy ci gàmm yi ak yooyu yëpp lan la lu dul du zikkër waaw ku ko génn nag yaa ko génne sa bopp mais doo fa dem fekk fa ñu fay nekk di fa xastante wala jëwante wala saagante comme li xew léegi ci Sénégal mais boo fa demee ñu yor seen i alquran yor seeni téere yor seeni i kurus ñii di zikkër ñii di jàng ñii di julli dafay fekk nga fekk beneen jàkk fu ñuy gaa fu ñuy te loolu euh, mu nekku fa mooy zikkar ci tur yàlla ak di ko sàbbaal suba ak ngoon di wasifa suba ak ngoon mu am ñoo xam ne dañu naan wasifa amul kooku moom beneen débat la ku ci pare rek ñun pare nañu incha allah ci def euh, débat sur ce kooku moom amul problème dégg nga lu lu ñu réglé woon la lu lu yàgg parce que yàlla moo wax ci alquran di ko encouragé leen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa li ko encouragé wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi mu ne na nga na nga na nga na nga na nga eh, eh, maanaam muñal sa bopp maanaam yaatalal sa bopp nga ànd ak ñi nga xamante ne ni eh, ñi nga xam ne dañuy sàbbaal yàlla suba ak ngoon yuriduna wajahu bëgguñu keneen ku dul moom yàlla yaa ngi dégg donc loolu mu nekk loo xam ne luy luy luy luy luy luy encouragé yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa pour que mu ànd ak ñi nga xam ne ñooy zikkër suba ak ngoon te wasifa du dara lu dul zikkër ak ngoon ku ko mun ça ku ko mënul amul problème moo tax gisoo ci génie wu Sidi Hadj Malick si nga xam ne dafa indi zawiya fii ci Sénégal dafa dafa dafa indi différence entre zawiya ak mosquée mosquée mu nekk pour ñëpp muy muy innal masajida lillah masjid ñëpp a ko moom waaw mu indi zaawiya nga xam ne nag ku fa dugg nag yow yaay yëfu tijaan la waaw mooy maanaam eh, xeej bi ak seen waaw ñu fay ñu fay parce que am na ñoo xamante ne peut-être heure julli bee du ñu fa du du ñu mën a eh, ñuy def wasifa parce que da ngay baat bi day jóg ci kaw ñu def ko loo xam ne kii c'est exclusivement réservé ak adeptes yi nga xam ne tijaan dañu soxla def wasifa mooy comme ci ñun siyaay rek lu ñu tuddee ay xuseyniya def masjid def xuseyniya xuseyniya bi mooy lépp loo xam ne yëfu chiite la ci xuseyniya lañ koy def lépp loo xam ne yëfu jullit yi la nga xam ne ñëpp a ko bokk tendance yëpp kooku dañ koy yóbbu ci ci ci mosquée donc mu nekk loo xamante ne lu am solo loo xam ne dañ cee war a bàyyi xel donc ñi doon def lii indi lii ñu ràññee lañu dañu am capacité yoo xam ne de discernement yu extraordinaire yoo xamante ne ni du ñu jaawale torchon ak serviette ak yi nga xamante ne dañ koo war a fompo donc moo tax ñi war a daral xel nit ñi wax leen ne lépp lu dul jóg ci def li fi sunu sëriñ ci bàyyi sëriñ su baax fi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci sunna yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ci taxaw di ci def bu ci kenn bu leen sax bu leen sax bàyyi xel bu leen sax ñooñu comme surtout les wahhabites bu leen leen sax bàyyi xel parce que lépp lu ñu wax ñoom seen doctrine lépp ci neen lañ ko teg indi ay aaya indi ay hadis interprété ko lu leen neex ñoom rek ñoo koy def nag waaw ñoom rek ñoo koy def boo xoolee umma bi fu ñu la ne ijma rek ci ñoom la te loolu musul am lu dul ci ñoom waaw seeni seeni neen ak seeni li nga xamante ne ni dafa war ak diine l'islam loolu moom d'accord nañ ci ñoom waaw mais boo xoolee ci umma bi boroom xam-xam dañuy woroog toujours ak li nga xam ne moom la yee yi di indi moo tax ñu war cee bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne mënuñu dem ci téere yi di gëstu ñuy déglu borom xam-xam yi nga xam ne dañoo sincère nekk ñoo xamante ne ni dañuy ay jëfkat lañu dafa am important. gis nga hadis yi nga xamante ne ni euh, dañoo wax ci wàllu euh, euh, di tiital nit ñi parce que ñooñu muy waxaabit yi benn hadis lañuy ñuy indi hadis bi. boo demee ci ci saxiixul jaamia euh, page mille trois cent cinquante trois ci benn euh, xutba rasul xutba rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa ne inna ci ma jël ci inna xayral xadiisi kitaabullahi wa xayrul ki hadyi hadyi muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuha wa kullu bidaatin dalaala gis nga hadis bi noonu la ñëwee hadis bi boo demee ci Ibnu Maaja euh, ci ci euh, quatre mille soixante sept euh, mooy numéro hadith bi nisaa yi ci téere bi ñu naan Mujtaba ci troisième tome ci page cent quatre vingt huit Ahmad Ibn Hanbal ci juzu juzam mi ngi nekk ci juzu trois muy troisième tome page trois cent dix tu tuddoon naa nisaay yi saxiix muslim indi na xadis bi numéro huit cent soixante sept donc mu ñëw encore mu ci biir loolu xadis yooyu ñoo ñëpp ko indi am na tuuti rek e, e, e, différence bu ndaw a ndaw mais ki nga xam ne moom moo moo ci gën a ëppal mooy Abu Daawuda ci xadis cinq mille quatre cent sept ak Tirmizi xadis 2676 ak ci ibnu Maaja xadis 42 nisaa yi wax naa ko sànq ci euh, euh, troisième tome mooy euh, page 188 donc foofu ñooñu ñoom ñooy indi finnaar iyaakum wa muxdasatul umuuri fa inna kulla muxdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun ba pare ñu teg ci wa kullu dalaalatin finnaar waaw wa kullu dala finnaar donc ñeent yi muy Abu Daawud ak Tirmizi ak Ibnu Maaja ak Nisaa'i ñoom ñoo ko indi ñoom ñoo ko ñoo ko ci yokk waaw mais ñëwul woon ci texte original bi nga xamante ne ni moom la yonent bi sallallahu doon wax ci ci ci ci donc euh, euh, euh, mu nekk loo xamante ne ni lu lu ëppal la ba Ibnu Hanbal sax dafa ne mu ngi tafsir xadis bi mu ne laysa kullu bidaatin dalalatun illa ida kaana yu yuxaalifu diin mu ne du du bidaa bu nekk mooy mooy réer lu dul bu dee fekkente ne ni dafay waroo ak euh, euh, li nga xam ne mooy sunna yenent bi wala mooy diine l'islam euh, bi nga xam ne moom la moom la ñu xam tey donc loolu dafa nekk loo xam ne lu ama am solo boo dee xool ci bidaa kullu bidaatin dalaala bida kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar loolu bidaa bi ñu nga xamante ne ni ñooy borom xam-xam yi ñoom leeral nañ ko quelle la signification de l'hérésie et les paroles des érudits là-dessus kullu u uhdisa ala ghayri misalin sabiqin loolu mooy bidaa maanaam étymologie bi euh, mooy lépp loo xam ne amal nañ ko te mosul am ci lu jiitu waaw mooy la signification même idiomatique jii moo bidaa muy hérésie istilaahan ci ay fi shari dégg nga maa xaalafa suntu rasul sallallahu alayhi wa loo xam ne dafa waroo euh, lii fi sunna yonent bi kullu amrin laysa alayhi amruna aw sharauna fa huwa raddun comme li nga xam ne noonu la ko Buxaari indee ak Muslim ci ci ci ci ci version yu xaw a wute euh, yoo xam ne yu yu yu am la foo xam ne bii moo ko njëkk a wax bi ma wax ni léegi bii man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kooku muslim moo ko indi ci xadisu euh, cent euh, mille sept cent dix huit buxaari moo indi kullu amrin euh, laysa alayhi amruna aw sharauna fa huwa raddun buxaari moo indi lool ñoom foofu la ñu yem abu daawud indi man sanaa amran ala gayri amrina fa huwa raddun képp koo xam ni indi na mbir moo xamante ne bokk ak ñun li indi lu ñuy sànni la muy xadisu sunu yaay mu wute am tuuti wute comme ni ma ko waxee léegi donc Shafii yi ñëpp xam nañ ko borom ngir la nee na ñaari bidaa moom am mahmuda ak masmuma boo xam ne bu ñu sopp la ak boo xam ne dañu ko ŋañ tu vois donc mooy lan premier bi lépp loo xam ne dafa ànd ak sunna kooku lu ñu sant la lépp loo xam ne dafa waroog sunna lu ñu ŋàññ la nekk lu baax boo demee ci xaafis ibn xajar al asqalaani ci fatxul yi moom mooy ki nga xam ne moom moo tafsir xadisu euh, Bukhari moo ko compilé parce que xam ngeen ne Bukhari treize versions moo amoon dafa moom moo ko compilé donc Bukhari juddu na cent quatre-vingt-quatorze mu dem ba euh, deux cent trente-neuf années après ci la ñu compilé Bukhari bi nga xam ne moom la ñu def léegi label pour les musulmans mu tax mu ne ni'ma euh, haadihi al bid'a dégg nga mu ne ni'ma haadihi al bid'a Umar wa salaatu salaatu tarawih donc bu fekkente ne bid'a yëpp dafa bon donc pourquoi Omar naafile yi nga xam ne sa koor dañu koy def ci suñu jumaa yi suñu jàkka yi guddi gu nekk donc loolu yonent bi eh, eh, du sunna yonent bi Omar moom moo ko indi xanaa kon loolu bid'a la mais bid'a bu baax la moom ki nga xam ne moo wax loolu mooy xaafis donc mu nekk loo xam ne lu am solo ci ci ci gisinam boobu donc donc loolu mun naa ci wax ay borom xam yu bëree bëri yoo xamante ne ni da ci ci ci ummatul islamiya eh, dañu ànd ak ñun comme qaadi ibnu arabi fi sharhi sahih tirmisi nawawi fi tahdib al asmaa wal lugat eh, eh, Ghazali imam Ghazali nga xam ne Sénégal ñëpp xam nañ ko ibnul asir fi fi nihaaya mi ngeeg moom alxaafis mi ci Zeynuddin ibnu Rajab al Hanbali fi kitaabi jaami al ulum nga xool ñoo ñëpp ibnu taymiya ci jëmu boppam moom it ci jëmu boppam indi na ko mu nekk ci loo xamante ne ni lu ama ama amal am am solo ci téeréem iqtidaau siraatul mustaqim ci v ci ci safha deux cent cinquante huit mooy tabu daarul hadis donc ñooñu ñëpp ay borom xam-xam la yoo xamante ne ni wax nañu ci li nga xamante ne ni moom mooy bidaa euh, te di ko yu baax yi di ko rafetal ne du bidaa yëpp donc ñoom ñoo indi euh, euh, ci biir loolu nag dafa am ñoom ñu ne ñu ne borom xam-xam yi dafa am cinq bida bi ci jiitu mooy ak tahrim mooy bida boo xamante ne ni mooy interdiction yu ñu tere ak bida boo xam ne wujub la obligation la maanaam lu mel nii alquran bi muy wàcc amul woon ay tomb amul woon ay ay sadd yooyu yëpp amul woon loolu comme ni alquran bi wàcc ni tey melul woon noonu bi yonent bi muy wàcc ci moom amul woon violation ni rien tu donc loolu obligation la tey mu am parce que sinon kenn du ko mën a lire parce que ba dafa classique woon donc ak dafa am karaaha muy loo xam ne lu détestable la ci ci bidaa mooy maanaam euh, euh, euh, bu njëkk ba yonent bi dafa tere woon ñu def xadis ñu bind xadis waaw ñu def tadwin xadis kooku muslim indi na ko tu vois ak sunna boo xamante ne ni istihbaabu bidaa boo xamante ne mustahab bidaa boo xam ne c'est désirable dañ ko soxla waaw comme comme comme gàmmu yi nii parce que dafa nekk loo xam ne dañ ci jàngale yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróomeelu bidaa mooy ibaaxa boo xamante ne c'est admissible lu ñu mën a accepter donc bidaa xasana euh, ci wàll par exemple euh, mën na dem ci wàllu ilmul ilmul ilmul xam nga euh, mën na dem ci ci ci linguistique ci bu njëkk ba istigaal bi ilmi nahu alladi yafhamu bihi kalaamullah wa rasul aw bihi kalaamullah wa kalaamullah wa rasulih euh, boo dee xool euh, amul woon maanaam tey li nga xam ne dañuy améliorer grammaire ba nga xam ne kàddu borom bi dinañ ko mën a xam amul woon donc ce qui veut dire que ni mooy base euh, li nga xam ne moom la ñuy wax ci usul ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa wajibun lépp loo xamante ne ni Eh, eh, eh, obligation la pour def ko dafa nekk lu war sans moom mënul nekk donc loolu dafay nekk loo xam ne lu war pour ñu def ko donc toute obligation qui ne s'acquitte pas euh, sans elle devient une obligation par exemple jamul quran maanaam boole al quran yonent bi bàyyi ko foon xanaa kon loolu bidaa la tu vois tadwinul xadis defal xadis yonent bi bàyyi ko woon tey bi ñuy reyee di ñu sonale ak ulumul arabiya yi nga xamante ne yëpp abul aswad ad-duwali imam ali moo ko ko jàngal waaw sujet complément euh, euh, euh, sujet verbe complément tu vois donc mu nekk lu mel noonu donc yu araam yi kooku moom di jeex lu mel ni comme wahabiya fikra wahabiya nga xam ne ibnu taymiya moo ko indi te ibnu taymiya bi mu ganisee àdduna fekk am na juróom euh, euh, euh, six cent soixante unième unième année ci la ibnu taymiya gën a àdduna donc yonent bi hijra am na ba maanaam six siècle six cent soixante et un juróom benn téeméeri at ak juróom benn fukk ak benn ci la ibnu taymiya doog a ñëw donc léegi kooku moo ñëw mu araamalal gàmm tu donc mu nekk loo xam ne lu grave grave grave tu loolu naka lañ koy mën a accepter tu donc loolu mënul nekk boo xoolee li nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, euh, ci wàllu mun man duubaat yi tabax ecole tabax jàkka yi comme ni mu mel nii ak yeneen yu demee noonu def concours alquran yi mais yooyu yëpp amul woon te pourtant man duuba la lu ñu sopp la waaw tu vois lu ñu war a so lu ñu sopp la defa ni ñuy taarale sunu sunu sunu jàkka yi ni ñuy defaree sunu suñu sunu Coran yi di ko rafetal reliure beeg embellissement yeeg décoration yi ornement yi mais yooyu euh, euh, yonent bi bàyyi ko fi woon te pourtant ñu ngi koy def tu donc kullu bidaatin dalaala kullu dalaalatin nekkul loo xamante ne ni lu ñu war a maximaliser mais ci ci ci ci lépp lu ñu def la tu parce que bu fekkonte woon na ni loolu la woon dafa am mooy nekkoon tey comme yonent bi alquran mi ñu wax ne euh, bu ngeen di xeexi wa iddu law mastataatu min quwa wa iddu law mastataatu min quwa min ribaatil xayli turhibuuna bi aduwallahi wa aduwakum na ngeen leen préparé lu ngeen moon noonu yàlla yi ci ci ay fas waaw pour tiital ak doole tiital yi nga xam ne ñooy noonu yàlla mais tey noonu yàlla yi tey ay kingër kingër la ñu yor ay ay bomb atomique yaa ngi dégg yoo xam ne intercontinental léegi ñooñu est-ce fas la ñuy xeexe ñoom parce que alquran moo ne nañu xe nañu préparé fas yi non déggin la parce que contexte ak contextualisation nit ku nekk dafa war a nekk doomu jamonoom waaw di xalaatee li nga xamante ne ni noonu la jamonoom di di di di xalaate mu nekk loo xamante ne ni lu am am solo pour ñu ciy bàyyi xel ñu bañ ñoo tardel waaw bañ ñoo tardel nañu bàyyi nit ñi ak seen yàlla ak seen yonent ñu koy taxawal di ko def ñu ko yëkkati Euh, comme li nga xam ne noonu lañ ko war a mën a yëkkati parce que adduna bi dafa soxla yonent yàlla wa sallam chaque fois comme toujours waaw comme gis naa ne actuellement def naa presque cinquante minutes donc dafay gudd trop trop trop te trente sax laa yaakaaroon donc euh, ndax sujet bi ni mu amee solo rek maa ngi koy yemale fii bu ko defee incha allah lii xam naa ba beneen incha allah mu ñu mën cee taxaw ci kàttanu suñu borom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.